ñu wax ci mbiru yoon rawatina ci procès bi amoon ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr tey jile ci suba mu mel ni sax ginnaaw bañ ko dàqee rek magistrat bi di Abdou Karim Diop ak ñi nga xam ne ñoo représenter ministère public rawatina procureur ci procès bu Sweet Beauté bi mu mel ni juge bi di Hippolyte ndey moom mi nekk ginnaaw dossier bi nga xam ni moom la yore woon njëm ci wàllu viol ak menace de mort ginnaaw gi sax nag la dàq nag bi le di koy yóbbu rekk ci ab audience spéciale boo xam ni rek ñaar fukki fan ak ñetti ci weeru mai lay daal di doon mu nekk ab audience boo xam ne nag ñi nga xam ni ñoom la rek concerné ñooñu ñoo ci daal di bokk maanaam askan wi duñ ko teewee avocat Ousmane Sonko yi ak bu Ndeye Khady Ndiaye ñoomee ginnaaw dogal ba nga xam ni rek jël nañ ko. ñoom dañoo ñaan sax bi les renvoi mu nekk nag benn weer rek maanaam ñu may leen benn weer rek ñoomee ñu xoolaat seen biir rawatina nañuy doxalee mu mel ni loole itam nekk na loo xam ni moom la ñuy gis jëm nag ci procès bile mu nekk ab waxtaan boo xam ne ñoom dinañ ko waxtaanee seen biir loole sax maître Clédor lii di xam ne ni Ousmane Sonko sax nag moom jotul ab convocation foofee ca tribunal ba kon loole lu ñu war a xoolaat la ba tax na nag maître la Diouf moom àdduna wax ni d'accordul benn yoon nag ci renvoi boobee ndax bi lépp procès daal yàgg na te def na léegi ñaari at ba tey rek ñoom mënuñoo wax lu wér ndax gis nañ leen ñuy am nag ay avocat saa su nekk teewul nag ñi ngay am ay problème di ñaan itam ñuy dàq nag procès bi saa su nekk kon loolee dafa war a dakk nag fi mu nekk nii d'accordu ci benn yoon waaye kii la di juge bi daal di Hippolyte ndey moom rek moom dafa desandi rek ca dogal ba mu jël di wax ni rek bi le procès daal daal dina koy euh, dàq rek euh, ba ñaar fukki fan ak ñetti ci weeru may ab audience spéciale rek lay daal di amal maanaam loo xam ne rek askan wi du fa teewee ñoomee rek nga xam ni ñoom la soxal ñoomee rek ñooy fekkee bi le procès